barkeel ngeen ndax dingeen regg yén ñi am yërmande barkeel ngeen ndax des na leen yërëm yéen ñi am xol bu sell barkeel ngeen ndax dingeen gis yàlla yén ñi wut jàmm barkeel ngeen ndax des na leen tudde doomi yàlla yéen ñi ñu fitnaal ndax seen njub barkeel ngeen ndaxte nguuru yàlla aji kawe ji yéen a ko yelloo barkeel ngeen bu ñu leen di saaga di leen fitnaal di leen sosal lépp lu bon ngir man bég bànneexu ndax seen yool dina rëy ci laaxira ndaxte noonu lañu daan fitnaale yonent yi fi jiitu yéena di xoromus àddina bu xorom si sàppee nan lañu koy delloo cafkaam du jariñeeti dara lu dul ñu sànni ko ci biti nit ñi dox ci kawam yéena di leeru àddina dëkk